waa asalaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp yàlla def na wax dëgg yàlla dañoo nekk ci yoon am fuñ jëm ci biir Italie te xam ngeen ne tra jóge région ba région nekkul yu yomb ci waxtu wi di leen wax ne dama mujj def loolu ñuy wax auto certification ne ndaxte liggéey moo taxaw diggante ci syndicat bi ñu taxawal ñuy sala ñu am nag benn bureau bu bees bu ñu ubbi foofu ca Genoa via après am liggéey yuñ préparé avant ubbite balaa ñu koy ubbi bureau bi jëloon nañ ko avant feebar bi di commencé waaye far feebar bi ñëw euh, bloqué lépp yàlla def na ubbi nañ ko waaye nag balaa ñu koy mën ubbi entièrement au public dafa fekk il faut ma dem fa am liggéey ñeeñ ak ñeeñ ko seqal foofu mu nekk nag premier bureau boo xam ne suñu syndicat bi dina ko ubbi en dehors de Milan bureau boobu mbokk yi mu ngi nekk quartier bi nga xam ne fa suñ mbokk sénégalais yeeg africain yëpp dëkk ñu koy wax Via Pre ñu bëgg faa nag def liggéey boo xam ne dañuy jàppale oriente taxaw doomu sénégalais ak doomu africain ak doomu gambien yi dëkk foofu ku xam Dieynaba xam ne dëkki cosaan la mbokk yi fi may wax ni journal bi maa ngi koy defee ci biir li ma leen di wax ni maa ngi koy defee ci biir train bi xam naa ne dinaa guddee yegg Dieynaba mais su yàlla defee rek ñu yegg comme ni ngeen ko gisee parfois guddi gi damay liggéey ci lay jox émission yu bëri ci rajo bi ñàkkul ne suñ yeggee dinañ indi xibaar yi ak ba noppi faram-fàcce leen lépp loo xam ne moo yelloog procédure euh, diaspora procédure sanatoria mbokk yi gis naa ni ñu bëri yónnee nañ ma ay message surtout ci whatsapp may jéggulu nag bu ci kenn jaaxale su ma liiru rek moo di ne euh, boole liggéey ak boole déglu nit ñi du lu yomb waaye nag fu mu ko yàlla mayee rek wax dëgg yàlla dinaa ko liir tontu ku ci nekk xam naa ne moom waa rajo defaral suñu bopp moom club rajo defaral suñu bopp te suñ doom Malick Fall di ko coordonné xam naa ne dinañ jot moom pour ñu wutal ma benn assistant boo xam ne mooy mooy tontu rek téléphone. maa ngi jégalu ñi nga xam ne wax dëgg yàlla yónnee nañ ma message te mënuma leen tontu du dara lu dul ñàkk pexe rek mais man su appel yi bëriwul képp koo xam ne yónnee na ma message dama fas yéene woon di ko tontu su lu gaaw waaye nag su fekkee ne waxtu wi ngay yeewoo ak waxtu wi ngay sangoo julli war a jóg dem liggéey da nga gis deux cent messages ci sa téléphone wax dëgg yàlla pour tontu leen du yomb. waaye nag xéwal la rek mbokk yi xam naa dinañ fi yegg si boo xam ne dinañ am benn call center ak xale yoo xam ne ñooy tontu nit ñi pour mën leen di leen euh, orienté wala di leen xa yëgal li xew ci kon nag mbokk yi bu leen jaaxle ñu ngi nii di dem Genova euh, ñu yëgg ak jàmm mais xam leen rek balaa may tëdd émission yooyu ñuy def ci mbirum sanatoria leeral yooyu ñuy def ci mbirum sénatorial bi dinaa ko def baaxal leen ci ñaar wala ñetti émission mbokk jërëjëf ñu ngi leen di nuyu seen xarit Baye Diouf fii ci train diggante Milan ak Genoa eh, di leen eh, jox di daje ci kaname eh, ak suba jërëjëf.